Euh, ñooñu ñuy wax suñu mbokk way laago yi ñoo def benn association bu mag ci biir Thiès Est pour taxaw taxawu seen bopp aussi ndax euh, wane wane seen bopp ni ci askan wi la ñu bokk mais wane seen bopp ci luy doxal askan wi donc ñooñu bi ñu dikkee di taxawal kuréel gi ñu ni kuréel gi maire moo koy jiite wala ki ko représenté loolu moo indi bés boobu maire yónni ma ma ñëw représenté ko daal di nekk seen président ma koy sant yàlla parce que nit boo xamee ni da nga mën a tooñ bari bàkkaar war ngaa wut ay yiw yu bare te nag ànd ak ñii di leen jàppale mënees na cee wut yiw kon may sant maire premier adjoint Cheikh Tidiane Lo ñoom ñi ma may chance ma ñëw jiite kuréel googu donc di remercier maire ah, parce que ku ci jàpp la mu ngi leen di suivre di xool fi ñu toll di xool li ñuy def di leen nemeeku mais di ci jàpp aussi ci li mu man yàlla def na fan yi dafa tukki nekk bitim réew waaye kii ko fi wut di Cheikh Tidiane Lo mu ngi ci taxaw taxawaay bu am maana fuñ ci toll mu ngi may laaj fu ngeen toll mbaa amu leen jafe-jafe luñ ko ci waxit jëm na ca wut saafara ba lii tey bu amee wax dëgg yàlla taxawaayam la kon ñu ngi koy sant di ko gërëm Abi Cissé mi mooy la présidente régional monsieur Kadam même mooy le responsable financier ak ñii nga xam ni ñoom laa toogandool Sala euh, Sala gay ñoom Aminata Diobé Ndiaye ñaaña Kunta ak ñi nekk ci biti di def consultation ñooñu ñoo nekk ci bopp bi di liggéey pour wane seen participation ci communauté bi le maire Magueye Sarr président structure cellule de base que wax naa ni aussi fekk naa lu bari ci rencontre yi ñu am ci bureau municipal wala ci conseil municipal bi mu jël jotam yëpp ak tempsam yëpp def ko ci pour seen structure bi mën a mën a dox donc ñu koy sant di ko di ko gërëm ci turu maire bi mais ci turu conseil municipal bi yëpp euh, ma wax ni aussi euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci activité bi ngeen organisé parce que mu leen gën wax ni rek lu ñu am nañ ko def suñu bopp mais bu pensez aussi aux autres couches défavorisées aussi jàpp ngeen ni war nañ leen jàppale bu baax mais ma wax ni aussi yéen war ngeen def seen kéemtalaay kattan ba di di am ñu leen di représenté ci conseil municipal yi ak assemblée nationale. parce que fii ñuy jëlee décisions yi au niveau local aussi bu ngeen amul ku leen fi toogal da ngeen obligé toujours topp ci ginnaaw maire bi di daw nañu defal li nañu defal lale wala du ngeen am ku leen toogal assemblée nationale fi ñuy voté loi c'est important. jigéen ñi xeex nañu ba liste yëpp léegi au niveau des élections locale wala nationales parité lañ koy def donc yéen aussi des na ngeen xeex loolu ba am ku leen toogal ci conseil municipal parce que foofu lañuy ñuy mën a jëlee yenn décision yu importantes yi wax naa ni aussi kenn rek moo nekk handicapé mooy ki nga xam ne dafa tàqalikoo ak sagom tant que nit tàqalikoowul ak sagom rek c'est pas un handicap parce que gis ngeen fi ñu ñuy tuddee handicapé yi ñu mais qui ont réussi qui ont eu un niveau de vie très relevé Stevie Wonder du gis Salif Keita et tant wax naa léegi ni am naa benn cousin il se déplace sur chaise roulante mais qui dirige une entreprise en Suisse donc nit warul taxaw ni rek man handicapé tant que yaa ngi ànd ak sa sago rek am nga loo am nga mën a def donc il faut refuser effectivement euh, d'être nest pas à l'écart de l'organisation de la euh, euh, de la société demain on peut avoir un maire handicapé damay on peut avoir des députés on peut avoir un président li am solo mooy nit ki ànd ak xelam mën a assumer ay ay responsabilités donc ñu ngi leen di sant di leen di leen gërëm di wax ni aussi su maire dikkee dinañ ko yënge dañ ci def nag bari na bariwul ñun ñoo waroon jël jël lépp en charge mais xam nañ ni aussi li des moo ëpp li ngeen def yàlla ñu yàlla may fan wu gudd may ñu may ñu kàttan ba ñu fekk activité bu merci monsieur le maire Magaye euh, yaakaar naa sax bu nu yemoon si li mu wax rek mënoon nañ ci mënoon nañ ci yem waaye nag euh, comme dañ fi teew teewal fi ñaari casquette ndax wax na ko léegi ndax am na ñoo xam ne su suñu dugg see dinañ ma wax madame le maire. mais nag dama fee teew aussi tamit ndax kuréel gi tey ji waral li am mu nekk benn projet projet boo xam ne dafa couvrir région de Thiès yëpp avant ma see avant ma see egsi d'abord dinaa remercier ñi nga xam ne ñoo toog fii ci table bi ma ngay présenté na leen léegi ku ci nekk fii présenté na sa tur kon duma ci delluwaat ah di leen sant bu baax di leen sargal bu baax aussi di remercier bu baax le maire de la commune de Thiès ess ni ko magay waxee léegi nekku fi mais nga xam ne moo ko représenté le premier adjoint au maire ñi ngi lay jox sunu ngërëm bu baax pour nga tegal nu ko ci loxo monsieur le maire ndax lii aussi tamit su ma am tey jàpp na ci bu baax a baax a baax ndaxte euh, bëri na fu ñu mënoon a def mais yaatal ginnu yaatal fii te monsieur le maire Magaye Sarr aussi tamit boobu ba léegi tàyyiwul sonnul mi ngi siy jàpp mi ngi ñuy ànd ak ñun di dem di dikk ba lii mën a teew tey kon dañ leen di remercier bu baax a baax a baax man nag si yéen laa bokk ndax ma tamit conseiller la au niveau de la mairie de Thiès Ouest kon tey bu ngeen defee lii ñun ñëpp ngeen ko defar kon au nom des handicapés de la commune de du département de Thiès ñu ngi leen di jox di leen wax merci di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay di remercier aussi équipe bi nga xam ne ñoo àndoon nag monsieur le maire en l'occurrence euh, Collé Gueye Aminata Diobé Ndiaye ñoom ñaaña ak ñi nga xam ne ñoo ngi ci biti ñoo ñëpp aussi tam ñu ngi leen di sant bu baax ndax liggéey bi c'était pas du tout ku ne xam naga di leen jàpp di leen jàpp nañ ay dat di ko delloowaat mais rien que pour na journée bi rek am kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen aussi tam si seen taxawaay ci biir projet bi ñëw fi nag ànd ak sama responsable financier administratif et financier muy monsieur Kadam tey maa moom ñoo def délégation représenter projet bi nga xam ne moo couvrir la région de Thiès mais le projet d'amélioration des qualité de vie des personnes handicapées projet boobu nag man mii di wax maay la présidente du comité de pilotage mu nekk euh, instance boo xam ne bu ma kiiwul ni moo gën a kawe ci projet bi ñu jox ma euh, ñu jox ma présidence bi loolu su amee tey dañu di liggéey ci projet boobu ñun ñi man moom mi ak ñi nga xam ni ñëwunu ndax projet bi dafa am nu mu tëddee dafa tëdd ci wër région de Thiès yëpp dans les trois départements de de Thiès bii nekk benn activité boo xam ne parmi d'autres activités yoo xam ne ñu ngi koy def tey lii ñu def nii def nañ ko au niveau de Thiès def nañ ko au niveau de Mbour et de Tivaouane kon benn activité la ci un plan d'action boo xam ne dañ ko taxawaloon pour le département de Thiès tey yàlla dogal ñu defee ko fii ci biir Thiès Est ci biir commune Thiès Est kon tey lii dafa nekk activité boo xam ne yamul si Thiès Est mais dafa couvrir tout le département de de kon loolu ñun dañ koy santé bu baax ndax projet bi aussi tamit duñ ko wax te remercier wu na remercier wunu suñuy partenaire suñu partenaires yi nga xam ne mel ni daaw euh, monsieur euh, Cissé jiite ko ku mel ni aussi tamit partenaire euh, allemand yi nga xam ni ñoom ñoo financé lii financé projet bi ñooñu aussi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant projet bi nag dafa am nu mu taxawee ndax dafa am un bureau tey xam naa ni peut-être balaa ñoo pare dina egsi mi mas ki nga xam ne mooy coordonné tout la tout la toute la région de Thiès mi monsieur Mika Diaw nekk chef de service de l'action sociale xëy na balaa ñoo pare fii sax dina ñëw muy couvrir nekk di coordonner projet bi moom aussi tamit ñu ngi koy gërëm ci taxawaayam ndax taxaw na tamit taxawaay bu rafet ngi ko sargal bu baax a baax mu am des des des des animateurs au niveau de chaque département département bu nekk tey ñun sunu animateur monsieur Bane Bane moo ngi nële moo ngi ci liggéey bi moo tax Mamadou Bane moo ngi nële moom aussi tamit bi ñu ko indee yaagul torop mais mi ngi liggéey liggéey bu rafet sur le terrain kon donc ñun suñu wax xëy na peut-être du ci xaw a bari tuuti mais dinaa bàyyi tuuti sama responsable Euh, financier mu am kàdd yoo xam ne dina ko ci sànni parce que tamit moom tey jii mooy noyau projet bi moom moo jaf jàpp ci tànk yi ba projet bi mën a dem dama koy bàyyi mu am lu mu ci wax tuuti di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment un grand merci surtout à <laughs> la commune de Thiès Est vraiment merci beaucoup Magaye gis nañ sa taxawaay vraiment ñu ngi lay sant bu baax di la sargal ndax lii aussi tamit mooy participation lii mooy inclusion parce que tey lii euh, mënoon keneen mënoon na ko organiser tey bu jëmee ci les personnes en situation de handicap dañ koy sante yàlla parce que tey lépp loo xam ne dañ koy def pour askan bi ñun dan bu njëkk dañu yaakaaroon ni ñëw ñi ñoo ko war a def pour ñun mais tey ñoo ngi def ay jéego di def ay jéego yu am solo kon loolu aussi itam dañ koy sante yàlla bu baax. c'est le projet d'amélioration de la qualité de vie de la personne handicapée. Euh, diviser c'est l'objectif les objectifs généraux du projet c'est améliorer la santé de la personne handicapée dans le dans la région de Thiès dans les trois départements de la région de Thiès et dans chaque département comme l'a dit notre présidente de comité de pilotage il y a un animateur qui coordonne l'ensemble de toutes les activités qui sont inscrites dans son département les animateurs et dans chaque département il y de, de, il y a trois grands objectifs un objectif de santé, un objectif de promotion sociale, euh, avec l'ensemble des activités génératrices de revenus qui sont financées par le projet, et un objectif de promotion sociale. Développement social il y a, mais la promotion sociale existe. La promotion sociale, c'est euh, l'individu en tant que tel, l'individu en tant que tel, en tant qu'acteur de développement. On voudrait que le projet Euh, fasse que les PH au niveau de tous ces trois départements cités soient des acteurs de développement qui intègrent la communauté. Et euh, intègrent la communauté, c'est à travers les comités RBC. Et on a pris la politique de dire les comités RBC avec le pouvoir décentralisé. On voudrait que le représentant du maire ou le maire soit le président du comité RBC de la commune. pour faciliter, pour faciliter l'intégration, pour aussi passer par les communes pour euh, atteindre les objectifs du projet en trois phases. Et ça, l'essentiel euh, de, la, de, la chose. Et l'essentiel de la chose aussi repose sur la communauté RBC, repose aussi sur les PH, qui sont des acteurs de développement, et repose sur les dirigeants de communes, les maires de communes, qui sont les présidents de communautés RBC. par rapport à la santé, nous avions cité deux phases. La première phase de, du projet, de l'activité santé dans le projet, c'était l'amélioration des conditions de santé de la population, de la personne handicapée. La première phase, on avait dit, nous allions recenser, nous avions recensé, et tous les communes ont ce recensement sur base de données Excel, de toutes les personnes chefs de foyer handicapées qui auraient besoin d'être dans une mutuelle de santé, d'avoir la couverture sanitaire. Il y a certains qui ont la carte d'égalité des chances qui leur ouvre la porte aux mutuelles, euh, mais il a, euh, la, la, la direction générale de l'action sociale ne pouvait pas tout faire. Il y avait quelque chose qui restait. Nous nous sommes dit, nous allons prendre 10 chefs de foyer par comité RBC et comité RBC communal. les comités RBC communal, si on prend 12, l'ensemble, le reste, le solde recensé des chefs de foyer qui devraient bénéficier de la couverture médicale, les, tout, tout, toutes les communes ont pris l'engagement de compléter dans leur budget l'enrôlement de ces chefs de foyer dans les mutuelles de santé. Le, la deuxième phase de, de l'activité santé, c'est-à-dire l'organisation des journées médicales de dépistage des maladies handicapantes. Ce n'était pas seulement pour la personne handicapée, mais toutes les personnes de la commune où nous organisons le, la journée de dépistage des maladies handicapantes. Donc l'handicapé vient avec sa population, mais avec des amis, le voisin, parce que eh, la personne handicapée au service des autres personnes de la commune. pour éviter les maladies handicapantes, les maladies handicapantes telles que diabète, hypertension artérielle. Je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas m'étendre sur ces maladies handicapantes. Mais en principe, j'ai entendu diabète, maladie, et c'est ça qui est fait ici comme consultation de base. Voilà, sur le plan santé. Nous sommes aujourd'hui à la mairie de Thiès-Est sur l'organisation de la journée de consultation médicale gratuite organisée par la RBC de Thiès-Est. Réadaptation à base communautaire. C'est une association des personnes vivant avec un handicap habitant dans la commune de Thiès-Est, mais pilotée et coiffée par la FRA, la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap. C'est une organisation régionale qui coiffe le département de Thiès, de Mbourg et de Tivaouane. Je voudrais, avant de continuer, remercier du fond du cœur le maire de Thiès-Est, en la personne de Pape Bassirou Diop, absent et représenté avec son premier adjoint, M. Chertidian Lo. Chertidian Lo est un jeune dynamique engagé au service de ses populations. Il nous a soutenus, il nous a assistés, il nous a donné les moyens d'organiser et peut-être de réussir la journée d'aujourd'hui. Au nom donc de la RBC, merci Monsieur le maire pour vos actions, pour votre participation financière comme matérielle. Euh, je m'en vais donc vous présenter les responsables ici présents. Il y a à mes côtés Abibatou Sissé, elle la présidente régionale il y a, comme je vous l'ai indiqué tout de suite, M. Cheikh Tidjanlo, premier adjoint au de Thiès. Il y a Aminata c'est la vice-présidente de la RBC. Il y a chargé de la commission, commission éducation inclusive. Il y M. Kadam, Euh, responsable financier Oumou xayri Gueye Oumou Khayri Diop c'est la secretaire générale et Ñaña Kunta membre de la RBC entre autres nous sommes là mais c'est une organisation qui regroupe plusieurs personnes donc qui sont tous là vraiment qui aiment ce qu'ils font participe pour le développement de la commune de Thiès-Est. Donc, euh, au nom aussi des populations de Thiès-Est qui ont aussi aujourd'hui bénéficié de cette consultation médicale gratuite, remercier la RBC de thiès